les deux avertissements bu pare ngeen sifflé na mars 2018 deuxième round Balla Gaye 2 Gris Bordeaux ici au stade Léopold Sédar Senghor ñoom ñaar jigéen ñëw ñu ngi lay atoo ñaan Alaaji Maalik dina ko fixé bu jub xool les visages sont marqués les visages de Gris Bordeaux. wala atoo waaye dara amagul Alaaji Maalik. dara ci deuxième round bi. Gris mi ngi réduire distance bi Balla ak garde gi di ko xool. mais le coach yi def différence bi. ñoom ñaar mi ngi lewtoo. entraîneur yi wax nañu ak ñoom ak staff bi. jéem ci mën na def différence. mooy dañuy def différence. mais détermination ak décision mooy jeexal combat bi. waaye demee nañu wet ñoom ñaar. diggante Balla Gaye ak Gris Bordeaux. bés bee tollu noonu combat bee tollu noonu enjeu bi moo tollu noonu. demee nañu wet. ñaar ñi ngi lewtoo. Gris jiital tànku ndeyjoor. Balla jiital tànku càmmoñ. xam nga léegi léegi musique yi. daal def na changement de pied. def na changement de pied. def na changement de pied. loolu mooy wane ni deux pieds la moom aussi. waaye doomu mu yàgg ca. Gris Bordeaux Balla Gaye numéro 2. ndax dina ci yàgg. Ah, waaw waaw ah, waaw waaw delloo na ko. delloo na wax na ca pied gauche ba. delloo na tànk

loolu teel na Max Mbargane na. waaw mais xam nga 15 minutes lancement de bras buy jeex doo ko def. attention daw nañu jàppante xeex tàggali ko. tàggoo nañu léegi. waaw waaw. Balla Seck jël na ko mën a suuf ñu gëj ko mu replié. Balla Gaye 2 Gris Bordeaux. mu ngi lay waatoo. Balla Gris. su ne dañuy bëre par intermittence. maanaam dañuy jékki-jékki déclenché jékki-jékki téyewaat seen bopp. ils ont fourni beaucoup d'efforts li ñu joxe dafa bëri. wala bëri. ñoom ñaar ñu ngi lewtoo lewtoo bu diit fi bu combat Moussa la toll fii waykat yi ngay dégg ñuy way. ngay dégg tëggkat yi ñuy tëgg waaye tey kenn wayul kenn tëggul. ñëppay seetaan. supporter yaa ngi di tekk tekkaaral. tey ñëppay seetaan El Hadj Malick. ñoom ñaar de part d'autre. il n'y a plus aucune certitude dans ce combat tout peut arriver. Balla moom da nga naan président bi moo yorof wala xaw ma lu xew. waaw am na ñu jàpp ni dafa ëpp gémmiñ bi. léeg-léeg mu génne ko ba jëfandikoo seqaat ko. Bébé le Dieu. Gris Bordeaux. Balla Gaye numéro 2. Tigre et lion dans la jungle du stade Léopold Sédar Senghor. Quel combat. daa ngi digg lewaatoo mais nag fi mu ne dara amatul. waaw dara amatul xeexatuñu bëreetuñu. waaw xeexatuñu bëreetuñu ñu ngi lewtoo rek. comme ne nit dafa ne mi ngi a nga teel na. seere teel na ndax 3 minutes wala 4 minutes la ñu bëree dugg. waaw des na daal ko mën a suuf ndax dafa décidé. waaye Gris bi nga ak jàmm ji rek toog sévère di ko xaar. di ko xool. Gris Bordeaux Balla Gaye numéro combat bi nii rek la mënoo demee max max. waaw li ci laxasu dafa bari. kenn mayul sa morom dara. ñu ngi waaw demee nañu wet. ñu ngi léegi ñu demee wet. demee nañu wet ñoom ñaar. waaye fi ne xeexaguñu bëreeguñu. laa ilaaha illallaah. ba léegi moom. gas na. maa di lim doon saf da koo saf ci premier ba mag su mbargaan yi waaw moo tax day demee dina ko supporter yi jóg nañu dañoo bëgg gars yi décidé dina ko supporter ñu ko ñoo bala gay numéro deux qui va porter la sauce Directeur Mendes, supporter Tri, c'est donné de la voix pour encourager Tri. Nico Kamala Gay Leuto. ñaar kenn bëggutee daanu tey. buñ continuer nii. ay ca bëre bëre bëre. Gris Balla door na benn crochet la gëdd ko Gris taxaw Gris Bordeaux Balla Gaye Balla qui réveille ses supporters Gris Bordeaux la doon wax la ñuy déclencher ay action dañuy jékki déclenché jékki téyewaat seen bopp ñoom ñaar. wala jëriñ. deme nañu wét. ndax sama ñaari jàmbaar yi dañoo sonn. waaw loolu lay niru waa laaj maa yi. waaw rythme bi daal changé na. le rythme a baissé d'intensité. wala jëriñ. pour le moment avantage Balla Gaye numéro 2 parce que moom moo am deux avertissements Gris am trois avertissements il faut ñu bëre pour mu jeex wala day dox di dem day dox di dem demee la ñëwet sept minutes de combat à mon chrono Balla Gris Bordeaux au stade Léopold Sédar Senghor le tigre le lion en action bala wàcc na bala wàcc na Balla Gris deme na ñëwet Balla Gris ñi ngi bëree wala boog ñi ngi lewtoo bi daal moo dàq deuxième di dañ ko caa def waaw moom lay niru ni la ñu amoon yëpp joxe nañ ko moom bi décision moo koy jeexal Gris Bordeaux Balla Gaye ñu ngi Leewtoo ba léegi pour le moment il ne se passe rien du tout dëgg la xam nga Gris daana song mais xam na ne Balla day bëri tànk Gris daw na song daw nañu daje jëndewaat nañu lan moo xew arbitre bi sifflé waat na foofu waxul dara da leen di bëre ren rek. acca Ballagiri. c'est-à-dire de manière psychologique il gère le combat c'est bien ñoom Balla Gaye Gris Bordeaux. Balla Gaye géré temps bi Alaaji Fay. bu fi Alaaji boo nekkoon nee na ay ca ay ca ay ca naa ne. premier ko premier round bi daal safoon na sax. premier round bi safoon na mais deuxième round bi. y' a moins d' intensité. moins de bagarre. moins de contact. Ah. huit minutes de combat. amoo chrono. il faut ñu bëre wu ñu classement de plan demee wet dem gauche dem droite. waaw bëre nañu neuf minutes. neuf minutes kon li ci des bëreetul à la mais ki toog a am chrono bi moo baax man sama chrono sama yëfu bopp la ñoom lewtoo c'est le combat le plus long de la carrière de Balla Gaye 2 waaw waaw baax ne woon waaw waaw waaw ñëpp ne woon du yàgg moo tax waaw Balla ko gauche li sëkkatal na ko door na droite Falla ngi dox ci kawam Falla daw na jël ko Gris Gris rëcc Falla ngi door Gris génn na Falla ngay Gris Bordeaux les cinq dernières minutes Falla ngay Gris Bordeaux comme dans le film les cinq dernières minutes. raam bi léegi saf na. raam bi saf na sàpp léegi. raam bi saf na xeex nañu xeex bu metti ku ne jël na sa coup morom. Et voilà la lune qui décline sous les projecteurs de Léopold Sédar Senghor. dans Et les supporters qui de la voix. Lewato. Di Lewato. Bordeaux, Balla numéro 2. dans la durée. Plus que loolu la jiri waxoon nga ko max deuxième round bi temps bi day gaaw non day gaaw ay ko quinze minutes seere ko du dara ci blanchiment de bras soo koy léegi mu jeex waaw léegi mu jeex léegi at bi taxaw dugg ci digg géew bi ñu jeexal ko Gris Bordeaux Balla Gaye numéro deux waaw waaw waaw waaw day gérer un bon combat dans l'ensemble un combat de très bon niveau même si deuxième round bi c'est moins intensif uh -huh. deuxième round bi bariwul action d'éclat deuxième round bi bariwul bagarre par intermittence la ñu doon bëree euh, ba léegi nag li ci des bareetul waaye ñu ngi leewtoo. ñu ngi leewtoo ñoom ñaar diggante Balla Gaye numéro 2 ak Gris Bordeaux demee nañu wet demee nañu wet waaye ba léegi des na laaj Malick. 12 minutes amoo chrono. dafa action daa fi suti. lu ne mën na xew. première rang bi daal moo tax deuxième bi. waaye yaakaar naa ni ci deuxième bi xanaa dina ci jeex. waaw est-ce que damay xalaat léegi bi dar képp. les minutes n'attendent fi xaar. waaw waaw. Gris Bordeaux Balla Gaye. les mbër day toll foo fi ngay jógee. waaw sa digg ci aw laal suuf doo ko. soo bëree temps a yaatu dootoo jël benn risque. la ci benn prise de ah, moo tax it ñu ngi gérer. buñ bëree temps bu toll ku ne dangay téye sa bopp. même booy ñàkk mu doon par décision arbitrale. waaye nag ñu bëri ba kenn tëb ci dënnu morom ba moo tax ba ci loolu la gars yi di te loolu décision moo koy indi. temps bu toll nii ma dem àll plus ma musu ko def. Gris Bordeaux Balla Gaye. 13 minutes de combat à mon chrono. attention. ana sànni na gauche waaye dalul. sànni na gauche droite. Gris Bordeaux Balla Gaye. mais ku la dalul. Gris Bordeaux Balla Gaye ñu ngi lew tooba léegi. dootuñu jël risque. dafa mel ni kenn bëggatul boo booy décision arbitrale la ñuy mujj wala. ah loolu nag moom li ñu defoon ci lu neex yëpp après dina am un goût naa ko de ñu jël risque. Max Mbargane. waaw mais na balancement de li topp seen gannaaw daa bëri. kenn du ci daanu. balancement de bras dafa garaaw. moo tax kenn du daanu. waaye nag ku daan am ndam. ku daan am way wu rëy way wu dootul fay ndax combat bi neex na joxe nañu li ñu am yëpp maintenant il faut décider 14 minutes à mon chrono. gars yi làmb ji tey ni mu rafetee ah bu bu bu Chine amoon dina gën a neex. Max Mbargane ragal naa la. ah. Max Mbargane ragal naa la. ba ñu dellu seega ma ne ni ma gis du bëre dañuy gérer. dañuy gérer kenn du bëgg a daanu. ba temps bi léegi mu jeex. dootuma wax dootuma wax parce que ñëpp a ngi may dégg dootuma wax tax bi fu mu toll. nañu ko bàyyi ak borom chrono bi. boo amee benn ginnaaw bi. 14 minutes. waaw amoo chrono. attention. attention. Gris Bordeaux. trois avertissements. Balla Gaye deux avertissements. Victoire. Kamala Daigo. Par décision. Trois avertissements. Griborgo. Deux avertissements. À Balagaï, après 30 minutes de combat, Balagaï déclaré vainqueur par décision arbitrale. c'est beau ça c'est formidable su ma sañoon su ma sañoon Gris Bordeaux ak Balla Gaye yëpp dañuy ci plateau bi Gris Bordeaux ak Balla Gaye yëpp laa ci kaw plateau bi Gris Bordeaux Balla Gaye ci kaw plateau bi je les félicite pour le courage je les la témérité je les félicite la bravoure je les félicite parce qu'ils se sont parce qu'ils ont répondu à l'attente du public.